jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñëwaat ak yéen ba tey wéyal xibaar yi bi leen wax nag ci kàddu yoo xam ne yëgit na ko moom député bi leen di Guy Marius Sagna jëmee ci li nga xam ne nag mooy cher gu dund gi bi bu yegg ci lool chasse aux opposants ak emprisonnement wu ki leen di Ousmane Sonko moom la député Guy Marius Sagna nag daal di taper du point sur la table euh, loolu la ñuy jëlee ko ci noonu nekk ci journal bi leen di yor-yor bi. jusqu'où ira le régime de Macky Sall ba fan la ñu jëm ak li nga xam ne moo di régime bu Macky Sall niki démb euh, fële ci siège bu parti de l'unité et du rassemblement du PUR euh, li nga xam ne nag mooy conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan Wi waroon fa amal euh, ak conférence de presse ak sax bu wala sax bi ci jiitu mooy bu groupe parlementaire bu coalition boobee loole rek la daan ko xeeñ mooy nag siège bu nu mel. fekk ñu daal di ko barricadé ba kenn mënut fa dugg ña def lu nu ma nag di takk der yi rawatina sax ñu ñi nga xam ne ñoo di gendarmerie moom député Guy Marius Sagna nag dénoncé énergétiquement loolu nga xam ne jàpp na ne nekk na benn violation constante de droits ak libertés yi nga xam ne nag sunu constitution daf ko garantir moom njiital euh, front pour la révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine euh, FRAPP muy invité aussi nag ki nga xam ne moo di président sortant bi euh, mu mu teg gër rek ci li nga xam ne moo di dund gi cher gi mu cher waaye nag bàyyi rek topp gi nga xam ne mu ngi koy topp ñi di ay opposants régime bu njiitu réew Macky Sall nag dafa fixé fixé wul benn limite ci rek li nga xam ne mooy dérive yi nga xam ne mu ngi am Euh, kàddu yu Guy Marius Sagna nee depuis nag mars 2021 opposant yi amatuñu benn yoon sax euh, euh, possibilité mën a def ay daje ci xel mu dal ci seen siège respectif ngir mën a discuter wala sax addu janook taskatu xibaar yi yéggee askanu ko Sénégal ni ki démb nag encore ca locaux yi parti bi nga xam ne moo di PUR parti de l'unité et du rassemblement nga xam ne nag aku euh, conférence de presse moo faroon am ñàkkoon a am di député yu coalition Yewwi Askan Wi moom nag dañ ko daal di encerclé par les forces de l'ordre mu nekk nag euh, beneen fi yoon euh, boo xam ne mbir mi ni mel mu ngi am te moom député bi de mu jàppee ko benn abus de pouvoir le parlementaire Guy Marius Sagna ba tey nag manquéwul benn yoon dénoncé vigoureusement li nga xam ne mooy interdiction yu conférence de presse yu coalition bi ni mel gannaaw sax bu mu empêché ñi nga xam ne nag ñooy bala euh, sax bu empêché ay réunion yu a am ci siège bu PRP bu Déthié Fall gannaaw bu mu empêché tamit li nga xam ne mooy réunion bu F24 gannaaw tamit ci bu mu barricadé euh, euh, gannaaw après dissolution administrative bu parti bi di Pastef tey jële siège bu PUR daal moom ñu daal di barricadé empêché nag ñu utiliser ko la sax ay citoyens sénégalais utiliser ko nag moom Guy mari Sagna mu jàpp ne ak recul démocratique bu yegg ci yéeme ba yegg ci loolu la te mu koy fustiger sax moom euh, honorable député Guy mari Sagna dans un premier temps nag laata ñi nga xam ne journalistes yi déplacé woon ngir na couvrir conférence de presse boobee. moom parlementaire bi nag yemul filmel en effet nag mu ngi invité li nga xam ne mooy le pouvoir mu xoolaat bu baax li nga xam ne mooy njëkk yi am ci denrée de première nécessité yi ak yokk gu jéggi dayo gi nga xam ne ñu ngi koy yokk rawatina li leen di soble nee nag nous gérons en siège euh, li nga xam ne de siège en siège nag ñoom nag nee na ñu dem euh, ci beneen siège toxal fa rek jëm fa amal seenu mbir maanaam di wër rek siège par siège ba xam euh, ana keñ la leen njiitu Macky Sall di mën a bàyyi ñu daal di amal seen conférence de presse bu ñu mel Euh, neen nag ñun Sénégal yi ci boppam ñoo war a dénoncer mbir moomee ndax nag ñuy sax amal benn confrance de presse ngir dénoncer li nga xam ne mooy dund gi seer gu mu seer ba yegg ci lool te diis lool ci li nga xam ne moo di Sénégal yi ndax dund gi cher na li ko marqué rek mooy kilogramme bu soble daan jar mille cinq cent francs tey jii la mu ngi ci deux mille ci yenn localité yi loole nag moo waral ba ki nga xam ne Euh, loolu sax moo ba ñuy wax président Macky Sall mu teggat euh, ci la nga xam ne mooy cher gu dund gi cher waaye nag euh, bàyyi rek ñi nga xam ne ñooy opposant yu muy teggat rawatina li lee di soble lu tax mënuñoo organiser ay session extraordinaire yoo xam ne nag dafay préoccupé rek wala day pro day nekk en procédure d'urgence jëm ci cherté de la vie li nga xam ne nag mooy le croix quadragénaire moom nag ba tey demandé nañu libéré li nga xam ne mooy le leader de l'opposition Ousmane sonk ak aussi képp koo xam ne détenu politique la bu nekk jamono jële ci suñuy prison au lieu nag ñuy maintenir li nga xam ne moo di Euh, en prison mille détenus politique moom Macky Sall nag dafa waroon a tëggat bu baax a baax ci soble yokk bi mu yokk ak cher gu mu cher lii nag mu liggéey euh, guddeek bëccëg ngir empêcher li nga xam ne moo di candidature bu président Ousmane Sonko euh, Macky Sall bàyyil mayal afia ñi nga xam ne ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak les mille codétenus politiques ñi nga xam ne nag jamono jile ñu ngi leen téye arbitrairement ci suñuy prison Macky occupé euh, sa temps euh, def ko ci li nga xam ne mooy euh, dunduk sénégal yi yi nga xam ne nag ci turam nekk na jamono jile dund gu cher paj mi cher njàng mi cher opération wu ci travail bi itam noonu liggéeykatu social yi nga xam ne nag métier la muy métier am moom Guy Marius Sagna di sàkku ci état bu Sénégal ak ñeneen parlementaire ñu organiser nag benn session extraordinaire ngir jéem a xool na la trouver ay solution ci cher goo xam ne euh, dund gi euh, cher na ko euh, ci nag li nga xam ne rek mooy préoccupation wu Sénégal ci gën caa waaye nag gis ngeen comme fële ci assemblée nationale session extraordinaire ay entre procédure d'urgence yi nga xam ne moo fa am daanaka buñ ca cité benn rek bokk na ci question réhabilité ki nga xam ne moo di Karim Wade ak Khalifa Sall ñoom nag nee nag euh, pour nga xam ne nag mooy candidature seen wala seen candidature mën a nekk euh, luy jàll ci présidentielle yu 2024 loole nag mu nekk lu antidémocratique te nekk sax lu liberticide euh, benn forfaiture lay mujjee nekk waaye nag pourquoi ñu mën a organiser wala sax lu tax mënuñoo organiser. ay session extraordinaire ci ay procédure d'urgence ngir nag xoolaat bu baax a baax li nga xam ne mooy euh, njëgu ko soble wala sax euh, li nga xam ne mooy dund gi gën gaa yaatal cher bi mu cher situation bi nga xam ne nag moo am ci suñu université yi ci suñu école ci suñuy lopitaan yi waaye tamit ci njëgum essence bi loole la fàttali moom mi la di député Guy Marius Sagna moom nag euh, laata sax muy tëj mu yokk ca euh, malgré rek li nga xam ne mooy les petites mesures yu njiitu réew Macky Sall nag am na benn recrudescence euh, des accidents yoo xam ne mu ngay wéy di am ci circulation bi oui waaw njiitu réew mi Macky Sall tegal gët bu baax a baax ci njëgu soble te bàyyi say opposants politiques yi ngay teg gët bàyyi tamit répression judiciaire bi nga xam ne mu ngi am ak chasse aux militants de Pastef de frappe nit dëgg valeur nee na nag dinañu woy di continuer di amal li nga xam ne mooy euh, sunub lankal euh, nous allons continuer la lutte euh, di wëy di ñàkk wala sax di wane ñàkk ànd goo xam ne ñàkk nañ ko ànd ci li ngay def file ci réewum Sénégal kàddu yi honorable député Guy Marius Sagna ci li nga xam ne nag moo di cherté de la vie chasse aux opposants ak emprisonnement bu Ousmane sonk jërë ngeen jëf mbokk internet yi li moo nekkoon li ñu di doon ci xibaar ci vidéo bi di leen jox dig daje léegi-léegi yeneen i vidéo ak yeneen i xibaar waaye laata loolee wa leen di like wa leen di abonné ci seen chaîne DK 221 ku dee gan ci page bi te abonné gu mën nga abonné activer sa cloche su ko defee lu ñu dugal ci vidéo nga bokk ci ñi koy njëkk a jot cant ngërëm ñeen leen